inna lillahi wa euh, ñu ngi lay nuyu di la ziyaara euh, nuyu la ci turu Seex Alsan Seen mii nga xam ni moom la ñu àndal euh, bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ndax mooy màndargam bëggam yépp muy sallallahu alayhi wa euh, tey mu ñëw ànd ak forte délégation boo xam ni ñii nga gis ñu toog mook ñoom ñu ànd ci lépp euh, ki nga gis mu dendal mooy jëwriñ xaali ndaw di doomi alaaji abbas ndaw mi ñëpp xam mu feggoog sëriñ xasan mi nga xam ni ci biir liggéey bi ci la bokk kii mooy sëriñ malik seen mi nga xam ni mook Cheikh bee bokk lépp muy magam euh, Serigne Sy mi nga xam ni moom it bokk ci délégation bi waaye mu feggoot imam Sall mii nga xam ni imam la fële ci Parcelles Assainies moom it bokk ci délégation bi ak seexal bu naama mii nga xam ni moom it euh, yàgg ak cheikh bi lool bokk ci liggéey bi ak ñi nga xam ni itam euh, tabarakallahu euh, ñu ngi ci oto yi toog ñoom ñëpp ñu ñëw euh, ni la ko seex bi waxee ndax bi yëf yi xew da fekkoon mu génn nga xam ni daanaka liggéeyam yëpp ci biti la waaye li muy nekk ci biti yëpp li mu njëkk xalaat mooy saa su tàbbi ci réew mi rek yittim ju njëkk moo ñëw jaale la sa yi nga xam ni lislaam gépp ñoo ko ñàkk ndax sëñ Abdoulaye Thiaw amuloon frontière ci diine tey boo duggee kër na Limaamu daa fi fekk Serigne Cheikh Gaynde Fatma daa fi fekk Soxna Jaara daa fi fekk Serigne Cheikh Medi Tidiane yi daa fi fekk Serigne Fallu daa fi fekk Serigne Ibbu Sakho loolu nag li ko ko mayoon euh, mooy baatu waxtasimu bi hablillahi an wala tafarraxu nga xam ni lislaam bi euh, buum gi waaye ñu ñépp fu ñu bëgg a yegg rek mooy sopp bi mooy say sayduna muhammad seex bi nag ñëw ngir joxante yow loxo euh, wax na li ni euh, xajoon na fi soxla woon nañu ko waaye yàlla miy jël ba léegi lu mu moom rek lay jël jëlagul mukk lu mu moom moo tax mu ñëw fekk si la tey nga toog sa toogay wéy jur wi ñu xam liggéey bu réy bi ngay liggéey ci réew mi taxawaay bi nga fi am ndax euh, gise bi mu doon gise bu neex lool ndax yéen a ngi waxtaan ba am na ay poème yoo xam ne bindoon na ko euh, nga xam ni appel bii saa su ko fi fekkee seex bi du ko manqué day ñëw fekki cérémonie bi ànd ak yéen ba jotaay bi jeex ñenn ci njaboot gi te ay wóllëre ñu mu ci war a saafanteel mu saafanteel ak ñoom delluwaat te xam ni diine rek ko ñor kon présentation boobu laa doon def euh, ñu bàyyi ko kaddu gi mu yëkkati kaddu yoo xam ne dafa jëm ci ci ci sa jëm waaye jàlle la itam sa sant yàlla bu baax nee na des di ko sant sëriñ bi seex bi nee na gannaaw bu ñu sante yàlla nee na des di ko sant nee na julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa nee ñu ngi lay yónnee nee na nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo yi nee na di la sant ci dalal gu rafet gii nga nu dalal lépp nag nee na di yiwu yàlla ak ni gox bi bindoo ndax yéen yéenay dalalaate ci gox bii ñu ne nee na ku fi nekk aussi war naa sàmmonteeg yéen war naa jaxasoog yéen nee na yokk rek lay def ci moom ne ba ñu dalee di ñëw ci yéen ba léegi nee na ci appel yi nee na yokk gu réy lañu ci am saa su ne suñu ñëwee dangeen ñu tatagal dangeen ñu teral ci seen kàddu nee ci seen baatin nee ci seen yëg-yëg ak ni gox bi bindoo loolu tax na nee na ñu yàkkamti woon lool nee na ñëw ci yéen nee na ñu ngi lay jaale li ñu bokk nee na di la ko jaale ci benn ci yow ndax li nga doon ci njaboot gi nee na téye kaddu dafa diis yàlla nag def nee bi nga ko téye nag ba léegi dafa mel ni nee na benn professeur nee na bu nekk ci amphithéâtre nee na amphithéâtre ci biir université nee na di jàngale nee na nee na nee na nee na daanaka li mu bëgg a wax nee na li nga xam ni mooy tax xelu doomu aadama nee na di am cohérence nee na cohérence ci laaj yi muy laaj nee na saa su nee ci ngëmam nee na foofu nga taxaw nee na yemuloo rek nee na ci ñuy wuyoo laayeen nee na Sénégal yëpp ngay waxal nee na saa su ne moo tax at bu jot nee na discours bi ngay def nee dafay ubbiwaat xel yi ba ba noppi nag annoncé ay perspective nee na ci xel nee na fan la xel nag war a taxawe nee na ba at ba ca topp loolu nag nee na dem ci maanaam mbalka la di fa naan ba màndi nee na ba déwénaat loolu nee na jànge nañ ko nee na ci sa taxawaay yàlla na yàlla fay la loolu nee na bokk nga nee na ci ñuy créer stabilité nee na ci réew réew nee na su amul jàmm nee na dara du fa doxati nee na malheureusement nee na jamono ji ñu ne nit ñi nee na dañoo demul ci essentiel nee na essentiel nag fi ñu toll nii te suñu réew soxla ko mooy ñu mel ni yéen nee na ñaan jàmm nee na ci réew mi nee na dox ci wax ci nee na dem sax ba koy yalwaan ci nit ñi nee na su jàmm jooju amul nee na lii nga ñuy feral di xelal ak mu jot nee na dootul mën a ne nee na kenn dootul mën a am occasion nee na daje di moo tax jàmm am solo nee na ki fi bàyyi ko ne bokk na nañu ñun nee na ñi mu berse seenu ndaw nee na di ñu dimbali nee na di ñu tette waaye waaye ci kaddu yu magoon ba tey jii demam bii nee na ñëpp nag di ko jooy ndax taxawaayam ndax maanaa gi mu amoon nee na ci société bii loolu nag ne tubaab dafa wax ni bon sang ne saurait mentir nee na loolu nekk nag ca góor gi moo tàbbi nag ci yéen moo tax ñu ñëwoon ci ñetti fànd benn bi mooy feddali nag sunu kóllëre nag ak yéen beneen bi mooy yónnee la sunu njaal nee na su tàbbee ci say loxo tàbbi na ci loxo képp nee na képp ku bokk ci njaboot gi loolu yàlla moo la ko defal nee na lu tabbi ci sa loxo nee na wesaare wu ci njaboot gi la ca des mooy kat xëy na tey la toogaay doog a am ci zahir waaye sunu yëg-yëg nag ci yow yàgg na moo tax ñu bëggoon ñaan la sunu ay échange malgré sa temps bariwul ñu koy bëreel danañu yokk dana tax aussi ñu gën a bokk ci sa njaboot lii mooy lu gàtt lu mu bëggoon a wax di la sant nag bu wér ci temps bii nga ñu may parce que temps amatul waaye sant nañu la di ñaan yàlla mu yàggal la fi nag ñaan yàlla aussi déglu gi ñu lay dégg nee déglu bi ñu lay déglu ak dégg gii ñu la dégg yàlla na suñu borom di gën a rafetal nag sa làmmiñ ba ñun tamit déglu gi ak dégg gi nee na di sax nag ci ñun ñu ngi lay sant bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu xalqi la sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala bi ne eh, Seydina ñu ngi lay nuyu bu baax nee di am mbégte nag ci jéego yi ñaan na yàlla nee lii diine rekk la te diine nag la ca saf yàlla li arab di wax al uquwa al imaniya al uquwa al imaniya loolu nag fala ñu yàlla njëkk a tàppoo fala ñu yàlla njëkk a tàppoo sëriñ Abdoulaye wax nee na mii nga wax addunaam bépp nag ci loolu la ko taxawe lu tax lu tax maamam Seyyiduna Limaamu looloot la sàkk woon ci moom sëriñ Abdoulaye lu jiitu ganeek addinam lool maamam da daan tudd ni sama cuuj ba ca bawal bu àggee ci nàngam ku ma déglu woon nee na ku ma déggul woon di ma dégg looloo waral sëriñ Abdoulaye. Sénégal senegal sëriñ Abdoulaye Ganjool la. sëriñ Abdoulaye la. sëriñ Abdoulaye Bawal la. sëriñ Bawal la. sëriñ Abdoulaye Kayor la. sëriñ Abdoulaye la. sëriñ Abdoulaye fii la. mooy ni sëriñ Abdoulaye. mooy ni sëriñ Abdoulaye. la. ci kaw ci kaw loola. loolo. loolo. la jàngi diine nag. lu nu mën a yëkkati. lu nu mën a yëkkati. mu gàtt mu gudd. programme bu nit mën a taxawal. te programme bu nit mën a taxawal. to xooloo. ci lislaam ci lislaam. jullit ñi. jullit ñëpp. jullit ñëpp. nga boole leen. nga boole yaay ñoom. yaay ñoom. ñooy yow. ñoom ñooy yow. weddi nga bind ba. nga nag bind ba. ndax nag. ndax nag. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moom la yàlla xool. moom joxañ ko. ni ko xeey. neel gay yi wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraxu yàlla moo ko wax nee na yonentam ni ko way gëm ñi nag ni ko way gëm ñi nag dajale leen ma wala tafarraxu te waxi yàlla nag te waxi yàlla nag ci alquran samina wa ataana loolu rekk a cay tagu kon ku jóg di dajale di dajale di wax di wax luy dajale way gëm ñi rawatina jullit ñi yaa nga ca ndigal la yàlla wax yonentam sëñ Abdoulaye nag loolu la taxewe woon moo doon mission amul frontière lu tax mu di ko am lu tax jaamu yàlla yi li leen sonal li leen sonal cëru yàlla yi moo sonal ñépp te yàlla nag du taggu kenn kenn amul maqaama laa nabiyun mursal laa nabiyun mursal wala malakun muxarram wala malakun muxarram nee na lawxul maxfuus yàlla kese la kenn raxu ko ci innaka mayitun wa innahum mayitun innaka mayitun wa innahum mayitun nee na fa la leen programme tàgguwul yoneen tàgguwul yoneen qui que ce soit qui que ce soit c'est son domaine réservé c'est moo tax moo tax macha allah macha allah jullit ñi jullit ñi wara wara ñu nangu ko ñu nangu moom la yàlla wax ñu bañ ko moom la yàlla wax waaye yàlla bu diggee nga bañ yaa ko weddi kon moom kon moom loolu la dundee. tegit tegit nangu nangu cër yi moom xamoon na ni moom xamoon na ni yàlla yor li xajul ci kenn nit ci kenn nit li yàlla yor li yàlla da koy wesaare li yàlla yor rek yàlla yor rek xajul ci kenn nit dafay jox ki jox kële jox kële jox kële tafaalun lima yurid bu ko defee nag moom ci la nangoo cëram nangu cër gaay yëpp kooku mooy Serigne Abdoulaye Thiaw Laye wax ngeen ko sànq kër yu baax yi suñu réew mii di senegal yàlla moo ko tànnal ay kër yu baax ba mu koy tànn ca azal kenn fekkewu ko réewum Sénégal réewum ku fi bañ ak ku fi bañ ak mbaax. doo am mbaax doo am mbaax. ñu baax a fi yeewoo baax a ngi fi yeewoo. ñu baax a waaye waaye ci li nu xam nag ci moom nekk nañu ndaw nekk nañu ndaw ci daara ci mais xam naa xam naa ni li wër sama waajur li wër way juram li ci Sénégal li ci ci ay tarixa li ëpp ci ñoom li ëpp ci ñoom jaxasoo jaxasoo naak ñoom ndax réew mi nag ndax réew mi nag bu dee ci tarixa rek bu dee ci tarixa mën ngaa jël ñeent mën ngaa jël ñeent kenn génn kenn génn ko bu dee tijaan ya bu dee tijaan ya branche yi bari na ci biir nee na branche yi nag bari na ci biir bu dee xaadiri ya bu dee yi bari na ci biir murid lii mooy sa ci kan moo ci mucc nag ci réew mi kan la da nga am fi maam wala nga am ko fe wala ko fe la tudd loolu lan la tudd ngëneel ci kaw ngëneel ci kaw ngëneel ci kaw ngëneel lii nag mooy Sénégal buñ ci génne yàlla defal nu lu jafe lu jafe gis nga ñooñu ñu tudd ñëpp gis nga ñooñu ñu tudd ñëpp boo ko xoolee boo ko xoolee ci wàllu ethnie ci wàllu ci wàllu lépp danoo jaxasoo danoo jaxasoo mooy métissage bi moom la Sénégal moom la Sénégal am sunu jàmm nag sunu jàmm falaka yàlla nee falaka yàlla tëral tëral sëriñ bi wax na ko nee nee na Cheikh Alassane wax nga ko léegi am na solo nag te am na solo nag islam wadxuloo fi silmil na principe général nag ci l'islam mooy jàmm nee gis ngeen ci turam asalaamul muminul muhaymin yàlla nag ku bëgg a jàmm rek mu jàmmal la nee na ñi ko dana jàmmal gaañ te yow nag doo am jàmm kon nag jàmm jàmm mooy diine ji principe nee na ci diine ji asilm assalaam mënoo fee togg dara. nee mënoo fee togg dara. bu dee projet lay doon. nee na bu dee projet lay doon. bu ak mën a rëy. ak ak lu projet bi rëy rëy. te te. jàmm lalu ko te jàmm lalu rek nee na coono rek a fayam. boo jëloon tey réew mi. boo jëloon tey réew mi. lépp yëngu. nee na lépp yëngu. nga jël budget nee na nga jël budget réew mi. nit ñi newoonu ci jàmm. nee na nit ñi nekkunu ci jàmm. daañu jël daañu jël. li ëpp ci budget bi li ëpp ci budget bi. jox ko sécurité nee na jox ko sécurité bi. bu ko defee bu ko defee. yeneen secteurs yi yeneen secteurs yi. dañuy sooxe nee dañuy sooxe. nee. anu santé anu santé anu éducation amul éducation amul leneen amul leneen. c'est parce que nee bu sécurité amul amul loolu du am njëriñ. te bu ñu jëlee alal ji bu jëlee alal ji jox ko benn secteur jox ko benn secteur nee na déséquilibre am. kon kon jàmm c'est fondamental pour le développement d'un pays d'un pays d'une société d'une société et cetera. kon kon loolu loolu. buñ ko tabaxee. nee na suñ ko tabaxee. looloo looloo ñu war. bu mu doon nag. nee bu mu doon nag. des ambitions personnelles. nee na des ambitions personnelles. déedéet déedéet. mais la société. mais c'est la société. moo ëpp solo moo ëpp solo. ba tax na ba tax na nag. moom moom. li mu doon dunde li mu daan dundee. dafa joué. dafa joué. lu ñuy wax lu ñuy wax. la cohésion sociale. la cohésion sociale. mooy nii mooy nii. këru diine yi. yàllaa ko def yàllaa ko def. c'est une réalité. bu wóor ci Sénégal bu wóor ci Sénégal. téeméeri sénégalais téeméeri yoo jël yoo jël. quatre pour cent quatre quinze pour cent. ñu ngay wuyoo këru ñu ngay wuyoo këru diine yi. ñooñu nag ñooñu nag. ku leen di jàmmal ku leen di jàmmal. dalal nga réew mi nee na dalal nga réew mi ku leen di jàmmal ku leen di jàmmal. dalal nga réew mi loolu la yàlla def. kon moom kon moom. bu mënee jël ci biir bu mënee jël ci biir këram. li yàlla def ci mbaax li yàlla def ci mbaax. fu ne mu dugal fa ne mu dugal fa. loolu lépp loolu lépp. njàngale ni rek la waaye nag waaye nag. alhamdulilah rabbil alamin damaa yaakaar ni damaa yaakaar ni sunu kër yu baax sunu kër yu baax yi génération yi fi nekk nee na génération fi nekk ñu ngi ñu ngi jëf nag ñu ngi jëf ñu ngi jëmit ñu ngi jëmit ci loolu ñun ku ñu jàmmalul nee na ku ñu am na nu fullay am na nu fullay jàmmal jàmmal ah sunuy kër nag ah kër nag fii ma toog fii ma toog wallahi wallahi watallaahi watallaahi këru diine yëpp këru diine yëpp ñoo fi toog ñoo fi toog fii ma toog fii ma toog. du toogu Serigne Abdoulaye de. nee na du toogu Serigne Abdoulaye. këru diine yi këru ñoom ñëpp. ñoom ñëpp ñoo toog ñoom laa fi toogal. lii lii. moom la def ci ñun moom la def ci ñun. man damaa màgg. man damaa màgg. gis Serigne gis Serigne Abdoulaye. maay taawam maay taawam. bokk na bokk na. sumay parrain samay parrain. ay góor ay góor. yu mag yu mag. ci yeneen ci yeneen i kër. am na góor goo xam ne. am naa góor goo xam ni. xaritam la woon lool xaritam la woon lool. lool lool. muy góorug Baay Faal. muy góorug gu baax gu baax. balaa maa xam ne mu ngi ci kër gi. balaa maa xam mi ngi ci kër gi. fajar fajar. jës boobu ngay dégg nee na jës boobu ngay dégg. ci biir kër sëñ Abdoulaye nee na ci biir kër sëñ Abdoulaye. fekkee naa tamit. fekkee naa ci beneen këram. góor gu mag góor gu mag. moo wutal kër. moo ko wutal kër. defal ko lépp lépp. kenn xamewu ko moom kenn xamewu ko moom keroog bi mu wàccee liggéey keroog bi mu wàccee liggéey dafa wàccee dafa wàcce dafa teg dafa teg ay poso yu bari ay poso yu bari ni yóbbul leen ma ko ni yóbbul leen ma ko Touba ci Seex Isaa Jenn fa la jokk ñoom keroog la ko ñu bari doo di xam nee na keroog la lu bari doo ko xam loolu fekke naa fekke naa itam li ko wër lépp li ko wër lépp ci Malika ci Malika parce que fa la ñu ubbiloon daara fa la ñu ubbiloon daara jàkk ji ko tiim nee jàkk ji ko tiim tiim daara ji tiim daara ji góor gi ko yor góor gi ko yor mu xaddam mu xaddam bu mag la bu mag ci cene ba ci cene ba jàkk jooju la jàkk jooji bi fi kooku jógee bi fi kooku jógee ku ñuy wax naar jàllo ku ñuy wax naar jàllo bokk bokk daarul mooti daarul mooti kër maam borom kër maam borom tuba yoraat jàkk ba mu fa jógee ba mu fa ku ñuy wax ku ñuy wax. mbay kebe mbay kebe. bokk Tiwaawan bokk Tiwaawan. yoraat jàkk ji ba fii ñu nekk ba ñu nekk. ka yor ka ko yor bokk. ca këram ca biir këram. lépp ci quartier lépp ci quartier. ci Malika ci Malika. mu dëppoog mu dëppoog. ci jamono ci jamono. yenn waxtu yi yenn waxtu yi. doo xàmmee doo xàmmee. kurusu kii kurusu kii ak kële ak kële ak kële ak kële. kookoy Serigne kookoy Cheikh Abdoulaye Thiaw Laye. kon nag kon nag. <laughs> loolu. loolu ci loolu la ñu yare ci loolu la ñu yare ci loolu la ñu xam fii fii li muy rëy lépp li muy rëy nag bàyyam bàyyam di Seydina Issa di Seydina Issa dëkk bii di Cambérène dëkk bii di Cambérène Seydina Limaamu Seydina mille 1887 1887 bi mu jógee Gorée bi mu jógee gore la sanc la sanc fële gent bi fële gent bi mooy fajaak mooy fajaak ay yooyu ay yooyu foofaa doon foofaa doon Cambérène gu njëkk Cambérène gu njëkk peste bi peste bi. 1914 1914. la ko Seydina Issa la ko Seydina Issa. andi dëkk bi fii andi dëkk bi fii. mooy waajur mooy waajur. alxaaji Abdoulaye Thiaw Seydina Issa boobu Seydina Issa boobu. moom la ma duppe moom la ko duppe. li ko dalee foofu ba fii yëpp li ko foofu ba fii yëpp. Cambérène ñëpp ngi fi ñëpp ngi fi. fii fii. a ngi fi ay nit ay nit. ñu jaxasoo ñu ci diine ci diine. di ay mbokk nag. ethnie yëpp ethnie yëpp nangam yëpp nangam yëpp ñooy dëkk bi ñooy dëkk bi bu dee tolérance bu dee tolérance ci ñi ñu bokk diine ci ñi ñu bokkulul diine am na fi am na fi fii fii toll na jamono boo toll na jamono boo xam ni àll bi yëpp àll bi tool yi tool yi ñi ko yore woon ñi ko yore woon ñëpp li ci ëpp li ci ëpp sunu mbokki sunu mbokki séeréer lañu séeréer pe boobu ñoom ñëpp boobu ñoom ñëpp ay chrétien lañu ay chrétien mais bu dimanche ma seen mais bu dimanche ma seen jot fii la oto yi jëm fii la oto yi yóbbu leen yóbbu leen grand yoof grand yoof ñu def seen mees kenn mu sosonal kenn te nag la diinakum lakum diinakum waliya diin kon l'islam l'islam pire pire la mag ñi doon doxal la mag ñi doon doxal sax te sax boo xoolee l'islam boo xoolee l'islam yàlla yàlla balaa muy tudd diine balaa muy tudd diine nit la yàlla màggal la yàlla màggal sooratul insaan sooratul insaan lu tax lu tax nit nit la yàlla defar la yàlla defar door kay dénk diine diine ba mu defaree nit nag ba mu defaree nit nag dafa bàkkaat boppam dafa bàkkaat boppam fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin du ni du ni keneen keneen mooy bind ci wetam mooy bind ci wetam déedéet boppam la bàkk kon nit moo ëpp valeur moo ëpp valeur kon kon li tubaab li tubaab yi di wax ay valeurs humaines di wax ay valeurs humaines lislaam ci jiitu ci jiitu wala xad karam na wala xad karam na bani aadama bani aadama kon takrim boobu la nee na takrim xale bi liir bii xale bi liir bii. ak màgget bi am téeméer ak màgget bi am téeméeraat. bani aadama kon droit de l'enfant nee na droit de l'enfant. droit de nee na droit de ceci. l'islam réglé na ko l'islam réglé na ko. na ci la ci wala xadd karam na. kon kon yàlla defalee bu yàlla defalee. ak lu mel nii ak lu mel nii waaye ñu rafetlu ko nee na jéego yi Cheikh Alassane rafet itam rafet lool rafet lool diine ji diine ji liñ ci soxla liñ ci soxla mooy nit ñi nee na tàlka dëgg la tàlka nee na li li ñuy bëgg ci diine ji mooy nit ñi tàlk ndax ndax ñii rayante ñii rayante di doorantey bal bu yàggee bu yàggee nee na jàkk yi tëddi tëj jàkk yi tëj. dëgg la nee na nee na bu ñu dee rayante yàggee jàkk yi tëj. ku ku ku yeewu. ne ku yeewu xalaat xalaat ni su ma duggee ci jàkk su ma duggee ci jàkk ji. bomb yi takk bomb yi takk léegi jàkk yi léegi jàkk yi kon kay jàkk doon fi taxaw kon jàkk jooju fi taxaw. kon jàmm nee na jàmm. ci la lépp ne ci lépp ne. leneen lu fi ne leneen lu fi ne. yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam. ba mu waxee nii ba asgari euh, ila jihaarin akbar dafa jaaxal dafa jaaxal saxaaba yi hmm. lu tax bu jóge nañ ci jihaad ji ndaw ji jëm ci parce que jihaad ji ndaw ñi ñuy rendee nit ñi mu ndawal ko day jaaxal gars yi hmm. ñu ne ko nag lan mu ni jihaadu nafs fii ñu toll nii fii ñu toll nii passion yi nee na passion yi. fa la yëf yi nekk fa nekk. lu tax lu tax. wax naa ko sama wax na ko ci ubbeelu wax. passion yi passion yi moo waral. moo waral nekk ci kii li nekk ci seexal sa. bu mu fi nekk mukk mu ñi bu mu fi nekk mukk. te yàlla jox ko ko yàlla jox ko ko. mu jaral mu jaral la. lu ne lu ne. di la xool nee na yàlla di la xool. bari na luy daw yëpp nee na bari na luy daw lépp. xeex cër la nee na xeex cër la. te fu xeex cër ne la nee na fu xeex cër ne. allahuma du jàll nee na sa allahuma nag du jàll. yàlla joxe cër yi yàlla joxe cër yi. innal fadla bi yadillahi yuuti man yasha kon nag kon nag. li fi ne li fi ne. bu nit ñi nangoon tee cër bu nit ñi nangoon tee cër yi. nee na nit ñëpp nag na la fadla li arabi ala aaja illa bi taxwa gis nga yàlla. ne ne nee na gis nga yàlla. yàlla du cuune. nee na yàlla du cuune. bay tàggu kenn bay tàggu na kenn. ba laaj nee na ba laaj la ne. fu mu jëm fu mu jëm. kon kay mu manqué. <laughs> na yàlla day manqué. kon kay yàlla manqué. nee na yàlla manqué. kon nag kon nag. li yàlla rëdd. li yàlla rëdd. ku ne la nga yaakaar la nga yaakaar. ci lu ci lu baax. innamal innamal amalu bi niyaati nee na su xol yi laabe nee na fu ne allahuma yàlla wuyu kon sunu réew mi sunu réew mi ñun dey lépp loo xamante ni lépp loo xamante ni day jàmmal nag day jàmmal doomu aadama doomu aadama yi ci seen diine ci seen diine du ma nee doomu ma ni doomu aadama yi su ma nee doomu aadama su ma nee doomu aadama yi ci nit ba ba noppi nag la tàmbali ndax ci la yàlla ci la yàlla tàmbali yàlla yàlla bu mu diine mujj ne diine mujj nit nit la la jox valeur li la koy jox li la koy jox. firnde firnde. yàlla yàlla ñi ko weddi ñi ko weddi. ñoo ëpp foofu ñi ko gëm ñi ko gëm. jëlal humanité bépp. nee jëlal humanité bi yëpp. bu dee 9 milliards la bu dee 9 milliards la. la ñuy tuddee monothéiste yi. la ñuy tuddee. monothéiste yi mooy yahut yeeg jullit ñeeg chrétien yi. waaw ñooñu tey. Mhm. nee ñoom yahut ak chrétien ak ñeneen ñi. ñooñu ak jullit ñi ak jullit ñooñu. boo dee jël boo dee jël ate yi ñi gëmul yàlla ñi gëmul yàlla gëmunu dara gëmunu dara ñoo leen ëpp foofu ci biir loolu ci biir loolu jël ci lislaam ne jël ci lislaam amagul ñaari milliards amagul ñaari milliards yàlla nee na muy dëgg te yàlla nee na muy dëgg ci kaw suuf te yàlla toléré ñëpp te yàlla nag toléré ñëpp di xaar yow di xaar nag yowmal qiyaam kon nag kon nag li nu yàlla boole li yàlla boole ci kaw suuf jant jant bi jullit moomu ko jullit moomu ko kudul jullit moomu ko yàllaa ko moom tàngoor waa ngi tey jii tey jii problème climatique la ñuy wax problème climatique la ñuy wax li fi daje ci àdduna sépp expert yëpp ay jullit lañu parce que loolu parce que loolu ne c'est un bien commun loo xamante ni loo xamante ni ñëpp ko moom ñëpp ko moom waaye yàlla moom waaye yàlla nag moom moom lépp waaye ñëpp ko war a waaye ñëpp ko war a jariñoo jariñoo ndax mu ngi ci kaw mu ngi ci kaw suuf tànk tànk yàlla wàcceegul yàlla wàcceegul ba atte atte ba atte atte ba nga dégg ba nga dégg xaali diina fiyaa xaali diina fiyaa amagoo dara amagoo dara adduna addina lu fi waay yor lu fi waay yor dañ la kaa dénk dañ la kaa dénk dénk dénk amoo dara amoo dara nit nit amul dara ci amul dara nag ci addina mukk dinañu dem te dañuy dem ba yàlla ba yàlla def defam def defam atte ba teg ba teg ba nangam ba nangam waxtu woo déggee ni fa mu koy defee fa mu koy defee xaali diina fiha nee bu la booyee nga ni am nga nga ni am nga ndam looloy am looloy am lu fi waay yor lu fi waay yor dañ la kaa dénk amagoo amagoo amoon ku amoon moom moom sa ruux nee na ko amoo waaye nag waaye nag. boo boo boo wuyoo ji yàlla. boo wuyoo ji yàlla. ba dekki ba la cay xew xew la cay ma cay nangam ba keroog ba keroog. moo xam moo xam. waaye nag waaye nag boo déggee boo déggee. xaalidiina fiihaa am nga. kon loolu kon loolu. kon dëgg yaakaar nañ ni. yaakaar nañ ni adduna bi adduna bi. tolérance tolérance ak ànd war na fee mën a am. war na fee mën a war na fee mën a ne. kon société bi société bi ku ci ne. am nga ci am nga ci. lu yàlla. lu la yàlla cërale li ci des li ci des intelligence intelligence intelligence doomu aadama moo koy mottali moo koy mottali comme ni ko seex bi waxee sànq adduna moom addina moom bu la yàlla dénkee bu yàlla dénkee ngay wax ngay wax ñu lay déglu ñu lay déglu liy ci yow liy génn ci yow bu mu doon yow bu mu doon yow nay yàlla gis nga bu dee sa bakken bu dee sa bakken di nga lor sa bopp di nga lor sa bopp ku lay dégloot ku lay dégloot te xamul dara te dara di nga di nga ko moo waral moo waral këri diine këri diine yi këpp ku fay yëkkati képp ku fay yëkkati looy yëkkati rek looy yëkkati nay doon nay doon luy dajale doomu luy dajale doomu dara warul génn loo xamante ni loo xamante ni boo ko sànnee soo ko sànnee mu créé ay frustration du diine du diine te du dara te du dara te du xam-xam kon kon sëñ Ablaye sëñ Ablaye noonu la noonu la taxawe woon la taxawe woon li ci des li ci des waajuram waajuram Seydina Isa Seydina Isa mi ko meññ mi ko meññ ba mu ko juree ba mu ko juree da ko tuddee da ko tuddee Abdoulahi Abdoulahi bëgg bëgg Abdoulahi Abdoulahi di Abdoulahi di Abdoulahi bi mu fiy jógee bi mu fiy jógee Abdoulahi Abdoulahi la delloo la delloo malaanu xalifa malaanu xalifa fi la ko sànni fi la ko sànni xilaafa xilaafa ci lislaam ci lislaam amul amul dun yowul amrun dunya yu xilaafa xilaafa ci lislaam ci lislaam addina la Seydina Ababacar Seydina Ababacar bi yonent bi nekkee ci feebar bi yonent bi nekkee ci feebar digal Seydina Ababacar nee na digal Ababacar ni ko jiiteel ni ko jiiteel jullit ñi jullit bi mu génnee àdduna nee bi mu génne àdduna coow li am coow li am jullit ñi nee ca jiite ga lanu attewoo ni kom ni ko kon Babacar Babacar doyoon nanu doyoon ci at mbiru mbiru sunu diine sunu diine kon war na noo doy war na noo ci sunu àdduna ci sunu àddina looloo waral looloo waral moo waral xilaaf moo waral xilaaf ndax lislaam ndax al imaama al hmm. kon foofu la ñu toll foofu la ñu toll sëriñ Ablaye sëriñ Ablaye néewu fi woon néewu fi woon xalifa xalifa classique classique déedéet ndax ndax loolu loolu parce que ku ne ku ne di nga sol di nga malaan mbubu ñu ni nangam ñu ni nangam te iblis te iblis am na ay xulafa kon kon loolu loolu fa ñu toll kon réew kon réew mi diine diine diine dafa war a jouer dafa war a jouer rôle boo xam boo xam ni day cimenter dafay cimenter unité unité nationale bu Sénégal. diine ji diine ji fii ñu fii ñu toll tey. loolu loolu moo gën a war a moo gën a war a. nekk rôle nekk rôle bu mu nekk nag bu mu nekk. comme ni ko gars yi bëgg comme ni ko gars yi bëgg. fekk ay boromi xam-xam ay boromi xam-xam. ma ne fii ma ne ma ne fële nga marginaliser nga marginaliser leen. naa leen nit diine yi. ñëpp yemu naa. ñii ñii. Ah. mane nañ ci jàkka ja nañ ca jàkka ja waaye mane nañ ci assemblée waaye mane nañ ca assemblée ba nag. da boole lépp da ngay boole yëpp. l'islam l'islam diine la ak addina nag. bu ñu nee nitu diine gi bu ñu nee diine liir baa ngi liir baa ngi néew baa ngi néew liir bi liir bi. lu fi defagul lu mu defagul. néew bi néew bi. jeexal na jeexal na dem na. ñu ni lii rek nga fi taxawee ñu ni lii rek nga fi taxawee. kon nag bokkoo. déedéet liir baa liir baa ngi kii fi defagul kii lu mu defagul néew baa ngi néew jeexal na kon kon kay ñun ku mel ni ñun waay waay ku mel ni ñun ah, euh, cheikh bi cheikh bi ñun ñii duñu nangu loolu ñun ñii daal duñu nangu loolu fi gaa yi génne yi génne raw fu ko lañu génne la ñu génne ba noppi nag ba noppi nag toog ci suñu ndono ci suñu ndono nag boobu génération boobu génération du ñun ñii du ñun ñii waajur suñuy waajur ah am na fu nu jaar am na fu nu jaar ak ñoom balaa ñuy dem balaa ñuy dem kon nag kon nag ñun ñun day daal di uute nag dafay daal di uute nag bu ko defee bu ko defee dama yaakaar ni dama yaakaar ni fii ñu toll fii ñu toll tey gën a mën a jariñ li gën a mën a jariñ réew mi foofu la il faut que faut que ñu boole ñu boole compétence yëpp yëpp moo xam ci diine moo xam ci diine. moo xam ci leneen moo xam ci leneen. loolu kat loolu kat la ñuy mën a defar ñuy mën a defar. taxawal taxawal réew taxawal taxawal une société une société équilibrée. loolu rek loolu rek. lanu am lanu euh, rafetlu lool rafetlu lool. taxawaay taxawaay euh, lu mu wax. lu mu wax. fii moom fii moom. macha allah macha allah. kër gi kër gi. njaboot gi njaboot gi. ñun moom fii moom. du ngeen fi am frontière duñ fi am frontière abadan ndax ki ñu meññ nag ñu meññ nag comme li mu ubbee comme li mu ubbee amuloon frontière amuloon frontière man aw ma ko man aw ma ko capitalu diine yëpp capitalu diine yëpp kilifa yu baax yëpp kilifa yu baax yëpp ñii samay baay ñii samay loon ñi ma ci mat bàyyi ñi ma ci mat bàyyi ñi ma ci tollool ñi ma ci tollool ñoo bokk mbir ñoo bokk mbir Sénégal day Sénégal day fu ma neex fu ma neex capital diine gu ne mën naa fa dàggu mën naa fa dàggu ndax li may wax ndax li may wax fi li ma wóor li ma wóor ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp nag laa toogal fii loolu moom loolu moom sant naa ci sant naa ci yàlla kon kon fa marhaban bikum fa marhaban bikum yéen a ngi ci kër gi yéen a ngi ci kër gi yéen a ngi ci njaboot yéen a ci njaboot gi ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ñu sant sëñ libaas mi nga xam ni euh, Cheikh ba nga koy sant ci taxawaayam ak ni mu waaw dirigeante tabarakallahu ah, ah, di sag njaboot te te lam ñu wax bi ñuy ñëw daf ni euh, Seydina Issa moom dafay toog rek ngir ku ñëw rek mu mu mu tey dafa wax ni waxtu nu ñëw rek pare na pour recevoir waaw tey loolu lépp waaw daal ki ñëw moom suñu lépp la waaw ah, sunu sunu lépp la wax ni dëgg appel bu jot appel bu jot na taxawaayam rafet te loolu rek mooy mooy waaw kontaan